non sentiment bu graaw bu bu bu doy waar quoi parce que tey ji dañ koy màggal Mariama mu sell mi c'est un man mii sax di wax ak yow su ma marche du ma ñëw foofu ngeen il faut que ma marche pour sentir carrément maa ngi ci màggal bi vraiment dama kontaan c'est c'est des grâces c'est la grace qui amène la grâce. waaw recevoir grâce bi ñu recevoir nii moo tax xam nga rek bu ñuy marché dañ ciy marché ak satisfaction quoi xam nga marché bii nii daa war bépp jeune parce que mooy loolu quoi maman Maria li mu ñu defal mun ñu kaa fay quoi waaw loolu laa jamoon. Christa moom loo ko defal jar ko moom waaw. sentiment nga am tey yow. i sentiment de joie mbégteeg lépp ci biir kay waaw.

mbokku Dakar Midi salaamaaleykum comme ni ngeen ko gisee suñu ginnaaw tey ñu ngi fii si Popenguine ni ngeen ko gisee 629e édition pèlerinage Mali Yalla de Popenguine tey ngeen bu nekk si Sénégal ñëw ñu fii teew fii si Popenguine tey jii kon ngeen ko nekk ñëw nañu teew ñëpp ñëw ay ndaw ay mag ñëpp ànd si bëgg gëm Mariam tey jii mu ngi noonu suñu ginnaaw ñu bàyyi leen ngeen dund ambiance boobu noonu tey jii si Jésus Christ. maman Marie ak lépp lu ñu mënti marché rek jar na ko jar na lu ko ëpp mënuñu ko suñu ñëwee ba fii tey ak coobareem a tax ak suñu coobare mais ak coobareem moo ñu dooleel ba fi ñu taxaw ni tey di wax ni ak yéen depuis démb ba tey ak moom rek. dama kontaan rek si waa MIPA MIPA moom fu muy fëlee fu ne mama Marie rek a ko xam kontaan rek si MIPA si xol bu sedd guy kontaan si MIPA di gërëm Moussa si rek muy suñu mais muy maire parcelle. c'est ma sixième année que je marche euh, donc euh, Et donc, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la cohabitation. Nous sommes en, mois, euh, dans le ramadan euh, qui coïncide avec la, Pentecôte. Donc, si on vient ici, pour marquer notre solidarité à la communauté chrétienne. Et vive la paix. On va vers des élections. Donc, on prie pour que la paix règne au Sénégal. Vraiment qu'on aille euh, dans ces élections en paix et qu'on termine tout en beauté. À ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.